شهر وفي سفر حماني على ماه مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه بسم الله الرحمن الرحيم gannaaw sant yàlla julli ci yonent bu tedd bi alayhi salaatu wa salaam e, ñu ngi ñëw jugee Kaolack ci ndigal yi Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass xaadimul ummati mu yebal ñu boole ñu ak rakkam Cheikh Mouhamad Siraji Diin boole ñu ak doomam taawam Cheikh Mouhamad Moustapha Mahi ak Cheikh Ibrahima Fall ak Cheikh Haydara ak mbooleem délégation bi ñu ànd ak ci taalibe yi ci mbokk gi yëpp ñëw fekk li si bés bi nga xam ne bésu lislaam la ci bés yàlla yi la bokk yàlla dogal tey ci tey yaa amee taxawaayi taxawaayi bés bi sang bi Cheikh Mahamadul Mahi ibrahim Ibrahima Niass ne woon nañ ànd ak waa kër gi yëpp te tey su ko jamono maye woon su benn ndog ngant amuloon jàpp na ne toog ak yow feggoog yow ci waajaayi bés bi ba bañ cee àgg loolu gën a jaadu waaye ku ne xam na ne ngànt moom ngànt la te xam na ne danga ko nangu loolu ndax xam na li ngeen bokk jàpp na ne it xam nga ni biis bi toll ci moom fuglu na ko ànd képp ku ci bokk oo ci lislaam ñëpp ndax moom jàpp na ne mooy liggéey liggéeykatu ñooñ lislaam mooy xaadimul ummati boole ñoo ko waa këram ñaan na ñëw ñëw ziyaar si la ndokkeel la ñaanal la yàlla sàkku nga ñaanal ko moom ngi ñaan yàlla nga yàgg fi yàgg taxawaay lool lépp luy sa mébét mu àgg ci sa kanam ci sa loxo ci sa kanam njaboot gi lépp lu sëriñ bi mébétoon it nga fekk ko fi lépp loo ci waslu yàlla na yàlla àggal ko ci kàttanal la ak wér ak tal wax na ne mu ngi ndokkeel topp mi yëpp ndax bés bi bésu topp murit la yàlla dogal na yéen a nekk ci buntu boobu mu ngi ndokkal mboolem topp murit mi di leen gërëm di leen ziar di leen ñaanal ay hadaaya yu yum jëloon pour feeñal eh, xolam ci bés bi ebal nañu ñu indi ko ñu ngi ànd ak eh, ndaw yi nga xam ne jaww li ñi nga xam ne ñooy saytu loolu waxoon nañu indi lu jëm ci mbiru reeral gan ñi rek jox nañu ñaari gëlëm ñaari nag ak ñaari toni dugub pour ñu ñu dimbali kooko ci reer yi gan ñi xam na ne tewut xam na ne ñàkkut fi it waaye pour wane moom xolam ci bés bi moo tax moom noonu la ko jàppee ñu ngi lay ñaanal ñun tamit ñu ngi lay ziare ci buntu boobu nga xam ne moo ñu ceebal di ñaan yàlla mu nangu ñaan yi ci yéen ñaan ñëpp ci ñun seen ñaan yéen mooy mooy li li ñu jëriñ ñun ci àddina ci àllaaxira kon ñu ngi ñaan yàlla nangu seen ñaan ci zaahir ak ci baatin bàyyi leen fi ñu yàgg ñëw di leen fi fekk wa zaalika alallaahi bi aziiz asalaamaaleykum wa rahmatullah nee na alhamdulilahi ñu ngi sant yàlla bu baax a baax mu ne di sant yit ci taxawaay bii. mu ne tox taxawaay bu jógee ci kilifa gi leen yebal. mu ne ngeen kilifa yu am yaakaar. mu ne ngeen ñëw teewal ko fii. mu ne dégg na kàddu yi bu baax a baax. mu ne kàddu yu sedd xolam la. mu ne kàddu yu dolli yaakaaram la. mu ne kàddu yu koy soññ la ci boppam ji fas yéene la a feddali ay laxasaayam fas yéene ko gën a ànd ak yéen sax dàkk ci jaamu yàlla ak liggéeyal ko ci lislaam mu ne ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax mu ne yëg na jéego yi mu ne yëg na jataay bi mu ne na ngeen ko delloo ziaral ko sëriñ maaxi bu baax mu ne santal ko ko bu baax mu ne ne ko yëg na taxawaay bu baax a baax mu ne ñoo ngi koy sant yàlla bu baax a baax mu ne ñaan ci baaxub sëriñ Tuubaa suñ borom gën goo gàttandoo ak tawféex ci liggéey bi mu ne te wér jiitu ja fan wu gudd bu ànd ak kàttan buñ gën a gën a mën a nekk ci liggéey bi buñ cee gën a mën a àggal suñu yéene mu ne cant gi amul fu mu yem mi ngi sant bu baax a baax mu ne di feeñal mbégteem bu baax a baax mu ne xolam set na guy jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf bisimilah bisimilah waaw simi waaw

bisimilah rahmaani rahiim eh, mbokk yi ñuy déglu di ñu seetaan ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci jëmmam di leen ziare ñu ngi fii tey ci Touba ci eh, kër Cheikh eh, Mouhamadou Mountakha xalifatu Cheikh Ahmadou Bamba di njiit ci lislaam bi am taxawaay boo xam ne. tey dafa too tombe ci bésam yi nga xam ne moo koy taxawee muy waajal màggal Tuuba bi noonu lañ ko mën a tuddee ñun waaye muy liggéey boo xam ne liggéey la ci tool yi lislaam boo xam ne yaakaar naa ne fi la ko fekk ay maam ay baay ay maam kenn ku ci ne góorgóorlu ci def ci ti jim ci def mu ñëw ba ci loxoom ñi wax ne waral mooy tombé ay gaaf ku nekk xam na ne yokkute am na ñu ngi ziare mbokki Touba ñëpp ci bis bu tedd bi nga xam ne moo mël si nekk suñ kanam tey nag ñun ñu ngi ñëwoon teewal si xalifatu saaxibul fayda cheikh mahamadul mahi xaadimul ummati moom nga xam ne moom tur woowu la jël lakkaayoo ko mu gënal ko lépp luñ ko mën a ooyee ndax loolu mooy principe moom mu ne woon nañ ñëw feggoo si ak mbokkam xaritam dëkkandoom euh, doomi baayam doomi ndeyam kenn ci njiitu lislaam yi fegoo seeg moom ci waajaay bis bi ànd ak ay njabootam ay doomam ay taalibeem ak toppam yëpp tey ku xam Medina ta xam ñii ñii fi toog ànd ak ñun da xam ne Medina suñuy wax mën nañ wax ne Medina ebal na ñi mu am ñëpp du ma dem ci détails yi ndax comme dañuy tënk lañ wax damay wax rek ne Medina am ebal na kilifaam yëpp ñi ñëw ànd ak Cheikh Mahamadou Siraji Diin mi nga xam ne mooy rakku Seydil Khalifa Cheikh Mamadou Mahi ci suma ndeyjoor soo xoolee ci suma càmmooñ da ngay gis doomam Mouhamed Moustapha euh, Mahi Niass ak délégation yi ñu ànd ak yëpp. li waraloon jotaay bi mooy ñëw fekkale si Cheikh Cheikh Mamadou Mountakha teewal si Cheikh Mamadou Mahi indi ziareem ak ndokkeelam ak ñaanam euh, loolu moo waraloon jotaay bi recevoir nañu fii ci këram def nañu. comme ni ñu Cheikh Mahi di def suñ dajee ak moom ci këram yëg nañ ne ci suñ kër lañ duggoon te Cheikh Mahi bi mu ñuy eb loolu la ñu ebee woon def nañu sëñ Mountakha mii li ñu booleeg moom dafa bëri dafay gàttal wax ji rek mooy ne Kaolack moo ñu booleeg moom. Kaolack fi la suñ baay bu tedd boobu Cheikh Ibrahima Niass dëkkoon nga xam ne moo doon signé al Kaolack yi kon dañuy wax ne képp ku la Kaolack booleeg moom rek Kaolack boole na ko Cheikh Ibrahima Niass loolu moo doon suñu tànk tey ñu ñëw ndokkeel sëriñ bi. ziare si ko teewal si képp ku mënta ñëw te bëgg a ñëw wala mu war a ñëw te bokk si ñun ñu ngi ñëw teew ci buntu Cheikh Mamadou Mahi jo jotali ndokkel ak ziare yooyu ak yóbbal yi wax na yëpp ñu indi ko nga xam ne moo jàpp na ne moo war a teral gan yi moo ren war a dalal te yàlla dogal mënut a ñëw moo tax ebal na ñi bokk ci moom ñëpp euh, dind na ci lim am amam lépp ne nañ ko terale gan ñi loolu daal moo doon tànk yi mu gërëm ñëpp di sant ñëpp di rafetlu dalal bi ñu dalal dëgg-dëgg xàmmewuñ fii ak fi ñu jugee biñ fi accès accueil nañu accueil boo xam ne xàmmewuñ ko ak fi ñu jugee moo tax ñu ngi sant yàlla te yemale kàddu yi foofu salaamaaleykum wa falaahi bi kawni abd rabbi xadimahu ajibun bihi li jaada mugnin anin nafar raditu anil mawla wa an xayri xalqihi